والقلم وما maa ngi commencé nuyoo bi suñu gan yi maa ngi leen di nuyoo di leen dalal di leen tatagal maa ngi leen wax bismillah ci place bi waaw daaw ñëwoon nañu fii dañ jógee Touba dañ ñëwoon fii visiter daaw daara yi ñoom nag dañu yëngu ci affaire mbindum Alquran yaatal bindum alquran foofu si loolu la ñu yëngu euh, daaw dañ joxe woon baas yi euh, ñu joxaale ay teere ren nag euh, ñu ne duñu mën a dem si daara yi pour mao sëriñ daara yi yëpp daje ñu waxtaan ak ñoom ñu jox lu ñu war a joxe dañu war a jàlle aussi waaw pour ma jox leen léegi ñu gën a leeral affaire seen biir salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo leen di nuyu bu baax baax di kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ko jox tamit wàccuwaayam ndax mu xam nañ kenn ku nekk mu ci yéen dafa bàyyi liggéey alxuraan muy daara waaye nag alhamdulilah ba mu ñëwaatee ci liggéey alxuraan kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi ñun tamit ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax mu ci ñëw gi fi ñëwaat ñaareel bi yoon bëgg ànd ak yéen liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko daaw jéeg incha allah. kon loolu moo ñu yëkkatiwaat ren ñu fekkaat leen fi ñu tey ñaan yàlla tamit mu bàyyi ñu fi ñu ànd ko ay ati ati at liñ ci bëgg ak liñ ci namm suñ borom defal ñu ko liggéey boobu nag comme ci ni may tàmbalee dafa tukkee ci société bu ñaan naan C3S c bu ne am na fii am na fii ci Ziguinchor ñoo dañuy yëngu ci jaay aluminium ak verre ñoom nag yàlla dafa dogal C3S dañoo nekk ay ay taalibe ay doomu daara ñoo ñu ne yem nekkoon am na ñu nekk ci daara yi jàngale ah, ba pare boole ko ak yaxantu yàlla barkeel yaxantu bi ba ñu xam ne lii kon mën naa yaatu ba la cay génne mën a dellu ci alxuraan ndaxte eh, ci Sénégal ak ci àdduna société bu ci nekk dafa am loo xam ne da nga koo warlul askan wi di ko génne. C3S nag comme que ñun waa daara lañ ñun moom su ñu li ñuy sponsorisé ñun ci alxuraan lañ koy jëmale loolu kon tamit société bi loolu loolu moo ko ci dugal rek bu ñu bëggee liggéey bi teg ci yoon dañ koy jël jox ko waa daara waa daara doxal ko kon loolu liggéey bi yëpp kon dañ koy jël teg ko ci loxol ñoom sëñ Saam mooy waa comité ak ak ñoom sëñ Baaloo ñun lépp ñoom ñoo ko yore kon liggéey bi noonu la demee waa waa daara yore société bi da ko sponsorisé rek lépp loo xam te ni dana ko doxal te mënu caa ñàkk ndaxte bokk na ci mbindam alxuraan dafa bu xam naa sëñ Saam dina ci ñëw sax ma dama ci junj tuuti rek dafa bokk ci lii tax nit ki bu jàngee alxuraan njàng ma toog njàng ma toog mooy mokkal ga du gaaw dem donc bind da caa bokk te bind dañoo seetlu ne Sénégal ñi ngi mokkal bu baax a baax léegi ñi ngi góorgóorlu ci ay tajwid ñëpp tajwid léegi jàmbaar nañ ci lool waaye dañoo gis ne mbind ma lañ ci amoon da ko néew ci at yu njëkk ya ña ngi koy sax ñàkk far benn yoon te buñ ko bàyyee mu dem su boobaa loolu baaxul ci ab jàngkat loolu nag société bi ne kon léegi man naa ñëw jàppale waa daara ci ñu dekkalaat mbindam alxuraan bokk na ci tamit li euh, société bi euh, dafa wax ne mu ne loo gis ci nekk am ab soññee da cee baax mooy luy tax nit ñi sawar ci loolu nag mu organiser concours mooy concours yaatal mbindam alxuraan boo xam ne dañuy dajale goxu Sénégal yëpp képp ku bëgg a bokk rek saa su weer wi ñuy bokk jotee da ngay jël sa benn feuille daa ci bind fukki bind ak ñaar nii nga jàpp ne noonu la baaxee après nga ñëw déposer ko kon loolu bu ci eggee bu ñu ci eggee dañuy def communiqué at mu jot dañuy def communiqué bu ko defee Ziguinchor gi bokk na ci région yi nga xam te ni mas nañoo jël euh, euh, troisième ci département euh, ci régional bi ak bi Bignona mas nañoo jël deuxième Matam nag maa ngi leen koy xamal Matam nag at yëpp nag Matam moo jël paie ñi ñuy ñaan ren nag wala déwén bu incha allah Ziguinchor jël premier léegi nag mois d'août bi di ñëw weer yu di ñëw mooy mois août mu la premier ci la ñuy woote ne képp ku bëgg a bokk mu bokk su boobaa nag ñoom sëñ Mballo ñoo fi nekk ak ak c ak ñoom sëñ Ibrahima bu ko defee képp ku bind rek app nga yóbbul ko ko loolu tamit concours bi ak yooyu yëpp mu sëñ Sam dina ci dikk leeral ko bu baax a baax. ñu ngi nuyu suñu mbokki sëriñ daara yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen masawu ci coono yi ndax xam nañ ne jot amut di ci jiital euh, Thierno Aliou Mballo moom mi nga xamante ne bi moom moo ñu dalal ginnaaw bu Ibrahima. Fall génne aussi Mouhamadou Lamine Diédiou daaw ñoo àndoon ren tam ngi jokkoo mi ngi may laaj ni léegi rek fu ngeen toll dafa am tuuti gàllankoor depuis dem bi ñu ñëw la ko xibaar kon ñu ngi leen nuyu di leen ci turu ñoo ñëpp di leen ne liggéey bi moom ñun ak yéen ñoo ko seq société bi moom dafa féetewoo lépp lu jëm ci wàllu fere moom moo ko féetewoo mais ñun ak fédération bi ñun ñoo dox seen digganteem ak ak ak daara yi kon liggéey bi kon benn la ñun dañ ko seq gënuñ leen cee euh, féete fenn ni ko euh, sëñ Mamoun waxe euh, C3S moom dafa jóg ngir jàppalante ak daara bokk ci ndimbal yi nga xam ne mi ngi koy def mu jëm ci côté boo xamee xamante ci daara la ko jëmee daara nag dafa bari côté yu mu aajo woon ndimbal côté yu baree baree bari actuellement bari na la yu mu ci jël waaye bokk na bi ci gën a fës fii ci tay bi tax ñu ñëw fii mooy lu jëm ci wàllu maanaam pédagogique lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale xam nañu ne ah, fi ñu toll nii bind ci boppam rek maanaam dafa àgg foo xam ne daa taamulee jeex ngir lan sabab yi nga xam ne moom la xam-xam andi tax na bind loxo daa commencé di jeex donte sax du daara loolu yéen ñëpp yaakaar naa seetlu ngeen ko nit dana xëy bind lu bari ci téléphone mais daanaka du bind du bind ci bikk daanaka lu mat sax maanaam ñaari bind kon loolu xam-xam ak jamono moo àgg foofu rawatina nag daara yi daara yi moom xam ngeen ne démb dañ daal mokkal alxuraanul karim ca mag ña soo ko mokkalee ba pare bala ngaa jóge ci daara ji da ngay toog ci daara ji bind ko bind boo xam doo ko xool boo koy bind comme ñun daara yu lañ jàngee suñuy doom daara yu lañ jànge mais aada jooju dañ gis ne dafa tàmbulee jeex ci daara yu bari ngir nag sabab yu bari société bi nag bi mu ñëwee ne dafa bëgg a jàppale ci wàllu daar ci wàllu pédagogique dana na jaare ci côté nan lañuy def ba delloosiwaat bind alxuraanu karim ne ko mag ñi doon bindee mu nekk loo xamante ne bi itam mook jàng alxuraanu karim dañu mos a ànd alayhi salaam xam ngeen ne bi mu fi nekkee da doon woo saxaaba yi am ay bindkat suñu bindee ba pare ñëw jàng alayhi salaam déglu ndax aw na yoon wala awdi yoon bis nee na ne képp koo xam ne bind yaa ngi bind ci man lu jóge ci man lu dut alxuraanul karim na nga ko far ngir lan alxuraanul karim yittewoo gëm ko yittewoo loolu moo ko sàmm tey ba mu agsi fii ci ñun kon day bokk ci suñu devoir loo xam ne lislaam moo ñu ko teg nan lañuy ñuy def ba bind alxuraanul karim boobu nga xam ne moom lañ fi fekkoon ñu téye ko maanaam mu bañ raaf loolu nag moo tax société bi jog dimbalante boobu nag ngir mu bañ a dafa créé concours bu ñuy wooyee yaatal mbindum alxuraanu karim concours foo ko fekk ngir nit ki sawar da wut loo koy neexale loolu tax mu mu mu mu def ko ngir nit ñi sawar ci wax dëgg yàlla gis nañu ne waxawuma fii de mais régions yi ci digg réew mi sax surtout Jurbel maanaam juróomi at yi ni ñu fonkewaat mbind ku ne xam na ne démb fonke ko noonu te ginnaaw yàlla concours bii moom moo ko waral loolu nag dañ bëgg mu law ci mbooleem région yi ci senegal gi yëpp loolu mooy suñu yitte léegi itam nit ki boo koy liggéey boo booy def concours bokk na ci li koy dimbalee nga wut maanaam lu tax mu mën a am ndam xam ngeen ne alxuraanul karim dafa bari xeeti xam-xam yu ci nekk yoo xamante ne bi da koo laaj xam-xam tajwid lan lay toppatoo nan la ñuy jànge baat bi kàddu bi ñuy dégg nuñ koy jàngee loolu lay toppatoo xiraat baat yi wuute yi ci wuute loolu lay toppatoo mais loolu concerné wut kii bokk ci concours bi ki ciy bokk lan moo ko concerné premièrement mooy na mokkal alxuraanu karim jépp ba mu jeex ndax lan xam ngeen ne concours bi bu koy def kandaay bu ñu teewee man lañ féetale préparer question yi alxuraan ji fépp fu ne danaa ci laaj question yooyu ci ay enveloppe ci lañ koy def candidat bi bu ñëwee day xool enveloppe ba ko neex mu jël bu ko tàppee bu ko teppee lu mu ca fekk loolu lay bind kon loolu yaakaar naa ne faaw nga mokkal kaamil bi yëpp mënul ñàkk soo ko mokkalee pare itam day laaj nga mën koo bind mbind mu wér xam ngeen ne alxuraanu karim la ko mokkal bind ko wax naa ko démb bu fale eh, Sédhiou boo taxawoon ci marché bii taral faatihatul kitaab suñu dee téeméer jàppal ne juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp mën nañ koo tari xëy na kenn moo ko juddu mokkal en tant que jullit waaye soo ko bindulu mbind mu wér xëy na sax doo am ñaar fukk yu wér lay kon ñu xam ne alxuraan la ko mokkal bindu ko bind dafa laaj ay xam-xam bokk na ci xam-xam yooyu bu ñu woyee mu ras mu mooy jàngale baat bi naka lañ koy bindee xam ngeen ne alxuraan karim ak langue arabe niñ koy bindee dañu wuute dañoo wuute ñuy régal daam rek règle yoo xamante ni bi moom moo ko jegoo lu mel ne boo jëloon baatu wala awdau xilaalakum yabxanakumul fitna ca suuratu tawba mais wala awdau boo bu fekkoon da ngay da ngay làkk arab nañ di ko bindu laam alif ngay bind daal di bind waaw baat ayin waaw mais ku ne xam ne bu dee alxuraan karim soo bindee laam alif da nga fay def benn alif boo xam ne day benn daara benn ronron bu ca nekk nga doon bind waaw loolu xiraat yëpp ñoo ko bokkale xafso xaaloo nag warshak fu ne moom nga fay kon bind alxuraan il faut nga xam rasmu nga jàng ko nga jàng rasmu ilmu rasmu nu ñàkk masalan euh, euh, laa tay asu laa tay asu mais bu doon da ngay binde lettre di bind rek bul naagu laa tay asu laa tay asu laam alif ngay bind taa yaa siin mais ku ne xam na ne ban alxuraan duñ ko bind noonu laam alif boo bindee taa da ngay bind bind benn alif def ci maskanique door a bind yaa kon daa am ay règle exceptionnelle yoo xam ne rasmul xuraanul karim moo koy jàngale kon tam candidat yi faaw xam-xam boobu ñu def ci yitte ñetteel bi alxuraanul karim boo ko mënee bind ba pare dafa am nu koy maase baat bi naka lañ koy maase arrahmaani rahimi rahimi bi ci topp suqi bi fan lay nekk tomb bi fan lay nekk loolu dabt moo koy jàngale kon tam faaw candidat bi ilmu dabt mu jàng ko ba xam naka la ñuy maase alxuraanul karim boo jëlul masalan ba lu mel ne sawdul xaq ma agna anni maaliya halaka mais boo demee fii maaliya boo wax foo foofu ha boobu kenn du ko maas halaka ba boo bee da ngay fekk ab chat da nga fay fekk loolu rasm du ko jàngale xiraat du ko jàngale tajwid du ko jàngale mais dabt mooy jàngale loolu kon xam-xam yooyu mënul ñàkk ci candidat bi mu daje ci moom ñeenteel bi itam soo mënee soo mokkalee alxuraan karim xam mu xam dab dañuy bëgg itam nga man loxo bu rafet parce que loolu dafa nekk fànn fànn aar la boo xam ne dafa bokk ci dafa day rafetal ab xam-xam muy rafet loxo rafet loxo nag euh, bokk na ci li tax itam concours bi jóg fexe bi nit ñi mokkal alxuraan karim man ko bind bind bu wér man koo maas maas bi metti ñu gën koo bind bind bu rafet kayit yi ñu leen jox gisu bii ngeen gis kii jël première première édition moom moo bind ci loxoom machine bind ko dañ bëgg nag ñu dem ba dongoy daara daara joo dem xale yi man mbind mu dàq mi loolu nag laaj na ab diir xam ngeen ne bind laaj na ab boo xamante ne bii loolu laaj na ko doo ko mën ci benn fan ñaari fan ñetti fan parce que bind du xam-xam maanaam mahara maanaam lu ñuy wooyee mahara la kon laaj na tàggatu looloo tax bâche yi andi ren woote na ak yi amoon daaw dañ ci jàngale caractère yi bind yëpp araf bu ci ne ñu andi format yi ci am ngir ñu tàggat ci xale yi ngir ñu xam dëgg dëgg dëgg maanaam naka la ñuy bind lettre yi loolu lañ ci jublu da ngeen kon ñu bëgg buñ ko joxee xale yi ci bâche yi ci daara yi ñu di ci xool di jàng lettre yi caractère yi bindi mbindu réew mi nag lañ wax mbindu réew mi xam ngeen kii caractère yi bokkul ak mbindu arab dañ bëgg a dekkalaat mbindu réew mi jàng tàggat ci xale yi ñu ñu ñu jàng mbindu réew mi fexe ba bu ñu demee ba ca kanam dañ mën a dem ba mën a am kaamil boo xam dañ koy woowee kaamilu Sénégal ni ñuy waxee kaamilu Tunis day wax kaamilu Algérie day wax kaamilu Maroc mais réellement wax dëgg yàlla réew yooyu de bu dee tari réew muñ ci dem ñun ñoo jël première mais tiw ba léegi seen i kaamil la ñuy jàngee kon nag dafa jot dafa jot nag maanaam Sénégal moom boppam ci lépp moom boppam ci alxuraan karim xam nañu ci wax ci àddina bi yëpp waaye ñu moom suñu bopp ci wàllu bind alxuraan karim bind boo xamante ni dañ naan lii kaamilu Sénégal la daara joon fekk fa loolu daal ci tënk Cheikh Ali Mballo loolu moo doon suñu tànk moom moo ñu tax a ñëw xam na ne concours bi itam euh, euh, ngir maanaam nit bu dee bokk concours tadu gañe day tàyyeel looloo tax ñu ber juróom benn région yi muy Matam Ziguinchor Kédougou euh, Sédhiou euh, Kolda des na benn euh, non non Ziguinchor ngay jël Sédhiou Kolda Kédougou Tamba Matam juróom benn région yi dañ gis ñoo ñoo niroo caractère bind looloo tax ñu boole leen benn concours ci seen diggante nga xam ne moom faaw rek dana am ku ci dàq bind ka ca dàq bind moo xam Ségansol la jóge wala Tamba wala Matam la ñu ne kooku moo jël première ci zonal yi suñu demee ne di tàggat xale yi ci bind suñu demee ba seen loxo niroo ni seen loxo yi niroo su boobaa mën na benn concours national boo xamante ne bii ñii ñi génn ci bii su boobaa dañ mën a euh, rawante ak ñoom su boobaa nag ñu jox leen prix yu mag yi nga xamante ne bii day tàmbalee juróom benn juróom million ak genn wàll ba ci juróom million ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu kon daal ci tënk lii moo tax euh, Thierno Aliou euh, ñu jóg fas yéene daal ñu ànd ko ak yéen at mu jot fas yéene aussi itam ñu fexe di tàggat xale di leen jàngal bind jàngale bind nag laaj na ab xam-xam euh, département bu nekk ña nga xam ne ñoo fa dàq bind nañu volontaire di liggéeyal yàlla ci loolu dajal xale ci benn daara jël tablo di leen jàngal par lettre tàggat ndànk-ndànk suñu dem ba ci kanam rek incha allah société dana mën a àgg ci ba jël ay formateur ñu mel ni ñun ñoo xam ne dañu am tuuti temps ñëw bu ñëwee dajale ay sin daara yafa fa dàq bi ni formé leen su ko defee ñooñu danañ mën a nekk ay relais di ko jàngale ci daara yi lii daal ci tënk mooy suñu kàddu ñu ngi jéglu bu baax eh, te di leen gërëm wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñëpp dégg nañu ko léegi nag loolu mooy sababu ndaj wi léegi eh, bu ñu paree fii war nañu jàllaa kii usu yi usu yi waaw loolu mooy seen loolu mooy seen programme léegi nag ko am kàddu rek mën na ci mën nañ ko jox. di am kontaan ci seen dikkaat bi ngeen fi dikk ñu di si kontaan lool tamit di leen euh, jaa jëfal alhamdulilah rabil alamin bi ngeen fi dikkee woon noonu andi woon fi ay téere wax dëgg am na ci daara yoo xam ne gis naa ne ñu ngi ciy def effort. ndax am na ci koo xam ne dem naa daaram gis naa mi ngi tàggat xale ci mbind muy mbaalo mi fekk naa ko fa ak xale ñu bind mu rafet ma gis fa affiche bi moo kontaan ci lool kon loolu tey rafet su ma te moom muy ga njiit ma gis ne mi ngi ci euh, tànk yooyu kon ñun añu fi teew ñëpp war nañ cee roy anta bi ni'mati rabbika bi majnun